Euh, mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre ak kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu moo jot bisimila ci xibaar Euh, li ci gën a fës daal na ci rek bokk euh, forum civil daan nañu amal seen toogaanu sikkimu euh, ci buntu mairie bu géeje waaye ñu annulé décret déclassement bu littoral bi la ñuy daal di sàkku jàpp nañ ne nag ci doxalin boobu dugaluñu ci askan wi dinañ ci daal di jukki ci ndorteelu xibaar yi ba tey rassemblement ñu ngi koy waajal benn fan ci weeru nag sulet artisan yi ñoo ko fas yéene rek amal cadre bi nga xam ne moo leen daal di ëmb ñoom professionnel yu Sénégal daal nag euh, koppar gañ leen diggoon ci wàllu fond Covid bi ba léegi jotuñu ci rax ci dolli itam ñuy dëgër piir ñii di mécaniciens yi loolu la ñuy daal nag ñaawlu euh, coow li aju nag ci intersyndical yi yëngu ci wàllu transport fas yéene nag jukki seen i nag grève euh, kuréel yi taxaw nag wàllu consommateur yi di ci daal di nag addu jàpp ne nag feetuk tabaski bi bokk na ci li wundu mbir mi ba tax ñu ngi cay daal di nag artu Mamadou Cissé dinañ ko daal di nag teewlu ci kanam tuuti lay doon wuro suug yi foofee fas yéene nañ fa samp ab aéroport ak nag ab hôpital njiit réew mi daal di koy nag euh, yëgle bu ci nekk muy hôpital ba daanaka euh, ñaar fukk ak ñaar ci ay milliards lañ ca fas yéene def bu dee aéroport bi nag fukk ak ñeenti milliards euh, conseil des ministres bañ fa daal di nag amal ay kàddu yooyu daal rote moom nag amal na pose première pierre jëm ci jumtuwaay yooyu les ponk la woon ci wax sa xalaat bi conseil ministre décentralisé nañ ko fi amale woon ay jamono ak jeexital bi mu daal di nag am boobu jamono journaliste ci eh, nemmeeku ba muy amal ca diwaanu Tiwaawan la ko Malick Gakou daal di nag xamle dinañ teewlu ay kàddoom eh, ci biir xibaar yi lay doon dinañ ci toftal yeneen i xibaar yeneen ponk wax sa xalaat aju woon ci wàllu crise bi tàbbi ci wàllu université yi itam doxalinu kii di Moustapha Niass fas yéene nag bàyyi leng yi ndaw ñi ñu daal di woyal doxalinu parti boobee naka ngeen ko jàngatee ci kanam ñu daal di ci ubbiwaat antenne bi eh, Assane Thioune moo fare ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon Adama Ndione ci kaddu gi mbokk yi ñu daal di nag doore xibaar yi ak forum civil ñi daal di amal toogaanu ñaxtu ci buntu mairie bu Géejawaay ngir daal di sàkku ñu daal di nag neenal décret bi aju nag ci wàllu littoral bi ak lañ ko daal di déclassé Michel Mendy ci jàpp ne askan wi daanaka nag duggaluñu leen ci wàllu nag consultation citoyenne yi ñu daal di nag amal forum civil nee na lenn lay sàkku jamono ji moo ñu daal di auditer lu aju ci mbirum suuf ca boobule barab ndax gis occupation yu jaarul ci yoon gis nañ ko fa te ñu daal koy joyanti Michel Mendy coordonnateur forum civil ca Guédiawaye ñu déglu ko El Hadj Moussa ci tey taxawuñ ci ëllëg parce que. bande bi saxaluñ ko fa noonu juste pour foo dañ ko saxal parce que dafa am njariñ donc njariñ boobu mu ngi continuer am ba léegi. donc buñ xëyee tey dégg ville de ne dafa am projet d'aménagement littoral bi demandé benn décret de déclassement président terrain niñ ko diggee conseil yi nekk ville de Guédiawaye noonu lañ ko diggee conseil yi nekk fii yëpp ci mairie yi nekk biir Guédiawaye yëpp donc ñoom ñu signé décret yi beneen bi mooy président de la République Macky Sall amul benn instant ci déclaration yu mu am jële jëmale ko ci pandémie en conseil des ministres bu yoo xamante ne mës na wax ni moom dafa bëgg ñu dagg filao au contraire day wax ministère de l'environnement développement durable naka naka saytul din moom lépp luy reforestation daf ciy taxaw lépp li aar alam bi def ci taxaw tey mu signé benn décret de déclassement donc ñuy wax ne ñi signé décret bi njëkkee ko ci moom président de la maire de la ville Aliou Sall maire yi nekk Guédiawaye tey yëpp ak conseil municipaux yi nekk ville de Guédiawaye ak ci yeneen maire yi Guédiawaye yëpp ñoom ëllëg lu munti xew fii parce que dañ fi jëlee bande bi ñoom ñooy doon responsable bi parce que simplement dina am ay conséquences li firnde bi mooy daaw ba mu amee taw yu foor yi ah, fi ñu dagg jox ko magistrat yi ci ginnaaw cité bi nekk ci ginnaaw ndox mi dafa taawoon ba dafay un am na kër yi yëpp la dugg presque yàq seen bagage yi donc noonu lay demee rek boo daggee filao yi la nature a horreur du vide ndox mi day avancé tey dañ fi taxaw pour wane ni d'accord ñu ci décret bi li ñu bëgg mooy effacer décret bi ñu annulé ko ñu abrogé ko lu ñu bëgg mooy ñu def audit foncier wu bande bi xam kan moo ko occupé régulièrement nekk teg mu tegu ci yoon ak kan moo ko occupé irrégulièrement tegul ci yoon bu fekkee ñoo euh, yoon daf ci am daf ci am yoon pour daan ay nit yoo xam ne dañu fauté yoon daf liggéeyam li ñu jàpp mooy policiers yi nekk Guédiawaye dafa bañ tegee seen bët ci filaawo yi amuñu jàmm am na ay zone yoo xamante ni commencé na am ay kër bu yàgg commencé nañ ko occupé bu yàgg te foofu kenn déclassé wu ko donc tey boo jëlee décret de déclassement dafay mel ni yooyu yëpp dañ koy dañ koy maasale muuraale ko li ñu waroon def mooy dañu war a def audit ba pare waaw ñooy daal di wax ci beneen nag euh, toogaanu mooy artisan yi benn fanweeru sulet lañ ko fas yéene amal ca place de l'obélisque doxalin bu cadre organisation bi ëmb professionnel artisan yu Sénégal di COPAS artisan yooyu nag ne ñu la ñuy ñaalu mooy yéex-yéex yi am ci lu ñu waroon nag jot wara a euh, toll ci euh, fanweeri junni ci fond Covid 19 bi ñoom nag doxub ñaxtu la ñu fas yéene nag def boolewaale ci déguerpissement boo xam ne mécaniciens yi nag saa su ne ñu ngi koy daal di nag euh, dund ak cherté bi am ci wàllu nag bant yi artisan yi di liggéey Babacar Diop bokk ci kuréel googu di COPAS ñu tegal ko ba tekk la Moussa Thiam. COPAS di cadre des organisations professionnelles artisanales bi Sénégal du kuréel gu ëmb bépp association bu yëngu si secteur de l'artisanat fii ci réew mi ñooy woo artisans yi ci réew mi yëpp le premier juillet ñu dajaloo ci monument ñi koy wax Colobane place de l'Obélisque ngir artisans yi nag ñu génn mën a laaj sunu àq ak sunu ci réew mi lépp lu ñu digoon defuñu ñu ci dara fonds de résilience sociale yi fanweeri junni yi nga xamante ne war nañ bind artisans yi ci réew mi yëpp ba tey ba suba France daal di xiddeen li jëm ci tenue scolaire yi ñu président dikk amul benn avancement ñu ci gis mécaniciens yi bis bi yàlla sax ñu seetaan télé ñu ngi leen di dégër piir lii di menuisier yi bant bi cher na ba mënatuñoo am dara li yëpp leneen ak leneen ak leneen ak leneen laaj suñu àq ak suñu yelleef ci réew mi ñu laaj suñu àq ak suñu yelleef dafa doy dafa doy dafa doy daal di nag euh, desandi ci beneen ñaxtu mooy grève bi nga xam ne intersyndical euh, acteurs yu transport routier euh, yëgle nañu ko vice président bu ASCOSEN daal di koy ñakk ànd daal di ci ñakk ànd moom Momat Cissé daal di gis ne jamono jile dafa jege ay ayu bés rek la des mu jëm ci wàllu ay del kebir bi di feetu tabaski bi te mën na ci am jeexital ci woy jëfandik yu Momat Cissé ñu teewlu ko ak Diakhab Say Liman Wane. ñun contre nañ grève boo xam ne. dafay impacté ci jullit yi ci moment bi nga xam ne ci la ñuy def tabaski bi te bu ñu wala waxee jullit yi suñu xalif généraux yi ci lañ bokk ndax xar mi kat du naaw xar mi dañ koy transporter donc xelaat yow ngay jullit toog ba tabaski jot nga ne da ngay dem grève pour que chef religieux bi wala képp kuy jullit doo am loo defee sa tabaski loolu xalaat bu ñaaw la te contre nañ ko contre bi gën a euh, gën a màgg loolu daal bi ñu ko waxee démb lañ leen wax ne na ngeen ko teg ci suuf te continuer waxtaan mais choisir période tabaski bi pour que jullit bi du am xaram loolu jullit waru ko xalaat ak morom Ah, ci la ñuy daal di nag desandi ci wàllu transport bi sax ak lu aju ci eh, yenn ci ay accident yi ñuy faral di ci nemmeeku sensibilisation daal na cay jib jaare ci ab film eh, documentaire bi nga xam ne wàllu insécurité routière lañ ciy fësal expert bi xam-xam màcc ci wàllu dem ak eh, dikk bi transport bi Ibrahima Ndongo diwoo woo nag woy jëfandiku yi ñu daal di jël seen i responsabilité ci wàllu nag yoon yi la mu gis mooy sensibilisation waaye itam ñu yar nit ñi teg itam ay daan yoo xam ne ba ci politique euh, sécurité routière bi tax askan wi daal di ci nag mucc te loolu état bi moo ko mën rek euh, def ñu teewlu ko moom Ibrahima Ndongo ak Amadou Moustapha Dia. accident yi comme ni ko gisee léegi ci film bi vraiment euh, lu daw yaram la ndax boo gisee benn bu taxaw ni moom kenn ñàkk na benn yoon ci accident ñeenti doomam vraiment c'est extrêmement lourd benn doom sax dafa ëpp malgré que li nga xamante ne moom la ñuy wax ci accident yi. am na lu réel la mais li ko li nekk réalité moo ko ëpp fuuf fuuf fuuf ndax bu fekkante ni ministère de la justice dafa wax ni en 2018 il y a eu 2166 tués mooy ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nit ñàkk seen bakkan bokkul ak nit ñi nga xamante parce que ñu dee moom dee nañu dootuñu xatal kenn mais ñi nga xamante ni ñooy dund da nga am ay problème ay ay ay préjudice yoo xamante ni su le plan physique sur le plan social dégg nga dëj rek dëj nit rek déjà au Sénégal euh, alal la il faut ñu xam ni sécurité du question Masamba wala demba sécurité c'est une responsabilité individuelle la il faut que kenn ku nekk jël euh, saytul sa bopp sa sécurité booy gën dem mais boo jógee fii di gën ci tali bi ñëw trottoir bi du pour piéton la mais loo fee fekk oto yi gaare ci kaw mais nooy def wàcc kaw tali bi mais accident am mais con espace de conflit yooyu lañu ñu a dindi il faut que autorités local yi xam ni trottoir yi waruñu ko jox borom taabal yeeg borom chantier yi dañu ko war a defar stabiliser ko ba nga xamante ni nit ki dox ak tànk yor yat wala du gis bu ñëwee trottoir bi mën a dox dem fi mu dem en tout sécurité mais trottoir yow miy gis sax boo ciy jaaree di dem da ngay am ay difficultés. ñi nga xamante ñoo dawal oto yi. il faut ñu xam ni am permis rek taxul nga mokkal mën a dawal déedéet permis boo ko amee mooy man na njort nañ ci yow ni mën nga dawal oto mais pour nga dawal oto en tout sécurité ak dafa laaj expérience waaw réew dégg am na ndax lu tax am na mooy bu accident amee ki nga xamante ne moo tooñ taxaw la ni malaaka ak jarak ni la par gaawal nga woo constat man dama yàkkamti parce que xam na ni bu ñu defee constat pare na amatu amatu dara doo ko ci fekkati mais du fekkante ne yow mi nga xamante ne yow lañ tooñ yaay def constat bi yaa koy fay yaay dem dégg toppi assurance am mu assurance am moo mooy fay expert bi nga xamante ni mooy wax ñaata lañ lay indemniser mais loolu lépp c'est loolu lépp boo demee ba ci biir nga def indi sa devis na cinq cent mille expert bay ni mille francs la mais mille francs yi da jël boo ko boo bañee samay amuloo beneen solution lu dem tribunal euh, alors dem tribunal fayaat avocat et tout cela mais la procédure est trop longue il faut ñu xool loolu Sud FM ñu daal di nag euh, wax ci tournée économique bu président Macky Sall jamono jile wala bésuk tey jile euh, amal na euh, teg xeer bu jëkk hôpital bu Ourossogui ak aéroport bu Ourossogui bu ci nekk nag ñaar fukk ak ñaar ci milliards beneen bi di wàllu aéroport bi fukk ak ñeenti milliards lañ ca fas yéene nag def ñu jokkoo ji ceek Abdourahmane Diène Abdourahmane ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay sëñ Adama. mu mel ni mandargale nañu ko ak conseil des ministres ba ñu décentralisé ca Matam. voilà donc euh, njiitu réew mi mu ngi wëyal euh, donc euh, tournée bi nga xam ne mu ngi koy amal si ci diwaanu Matam tey jii nag dafa xëyoon gannaaw bi mu amalee conseil des ministres délocalisé ci ngoon bi mu dem daal di teg xeer bu njëkk ISEP bu Matam bi mu noppee foofu noonu. Eh, ci la ñëw fii ci eh, Ourossogui fii tamit mu daal di fay eh, mu daal di fay indi mu daldi di fay indi demal mu daal di fay indi donc ab délégation bu mag ngir ñu fekkee xeer bu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy teg ngir daal di fi amal donc li nga xam ne mooy aéroport bu mag bi nga xam ne njëg li dina toll ci quatorze milliards de francs CFA donc gannaaw bi ñu tegee xeer bu njëkk boobu nag defaat nañ benn geneen donc lancement travaux bi nag wàllum hôpital la ndaxte hôpital bi nag coût bi mu ngi toll ci euh, ñaar fukki milliards ak ñaar boo xam ni donc moom lañ ko fas yéene def euh, te boobu nag ñu gis ne dina am capacité d'accueil bu toll ci euh, téeméeru lal yu teg juróom fukk donc muy hôpital bu mag boo xam ne dina mën a indil njariñ bu baax a baax askan wi nga xam ne dañ doon joytu ne eh, bu ñu buggee faju dañuy dem ba Touba wala ñu dem ba Ndakaar njaay ngir daal di ko mën a faju donc eh, ki nga xam ne mooy eh, donc maire Wuro Sogi di maître Moussa Bokar Thiam gannaaw ba mu yëkkati kaddu dafa xamle ni moom donc amul benn doléance yi nga xam ne moom lañ jëmale njiiti réew mi lu dul ne dafa bëgg njiiti réew mi daal di jël dogal ne ndox mi danañ ko dénk waa SDE. ndaxte dañoo gis ne doomu dëkk bi ñoom ñooy gérer ndox bi te ñu gis ne fii ci Wuro Sogi daanaka saa su ne ndox daf di manqué daf di daf di faral di manqué bu baax a baax waaye it eh, ñu gis ne eh, donc eh, problème mu espace dafi amoon ndaxte Wuro Sogi aéroport bi dañ ko duppee aéroport de Wuro Sogi waaye bu ñu xoolee ba xool dañuy gis ne aéroport bi daanaka ci suufu commune Ogo la bokk ba tax na kii di donc maire Ogo bi mu jëlee kàddu ci la xam ne ne dina yëkkati lu tolloo ko vingt cinq hectares yoo xam ne ci commune Ogo lay lay la nekk mu daal di koy jagleel la euh, euh, béréb bi nga xam ne fa la ñuy tabax hôpital euh, lii nga xam ne mooy future université bi nga xam ne donc dana am capacité d'accueil bu toll ci vingt cinq mille étudiants donc voilà ci noonu la donc ndaje li jeexee ci nga xam ne moom mooy ca Ourossogui donc njiitu réew mi dellu na ca gouvernance nga xam ne foofu lay dalloo Euh, guddi gi dina wéyal audience yi nga xam ne moom lay euh, donc jagleel ay militam ak ay nitam léegi bu jotee dina dem fa fële nga xam ne mooy département Kanel foofu dina procédé li nga xam ne mooy lancement travaux yi donc euh, deuxième tronçon bi route du Dandemaay bi nga xam dana jóge Matam jëm ba Dembankaane voilà Adama loo xam ni lii mooy li nga xam ne moom lañ mën a jàpp tey jii ci jaajëfal ko kon bu baax euh, moom Abdourahmane Diène euh, ci leeral yooyule le tournée boobu la kii di président bu grand parti euh, jàpp ne nag tournée politique la moom Malick Gakou daal di nag gis ne croissance économique bu Sénégal tolluwaay bi ak situation bu doy waar ba muy daal di nag dund nekk na lu waroon yitteel rek njiitu réew mi Macky Sall ñu teewlu ay kàddoom ak Babacar Sow. waaw xam nga ne tournée président Macky Sall moom mënul nekk lu dul tournée électorale tournée politique waaye loolu du ma wax parce que li am solo sénégalais yëpp teg nañ seen bët weddi gis bokk xam nga booy tournée di wax rek di tournée foo tournée gis sénégalais yi ñu gën a sonn gën a ndóol war nga xam ne tournée boobu li ko gënoon am solo mooy li tax sénégalais yi jaaxle li ñu tumuranke nga régler seen problème waaye di tournée mel ni ko sareetu jinne di wër réew mi di yàq di wax te loolu la ñuy xeex te bu neexee léegi mu jeex Sénégal am président ko teg loxo yoo xam ne nii loxo yu set la ngir jàmm Sénégal ngir jàmm jigéenu Sénégal ngir jàmm xale Sénégal ngir avenir Sénégal boo xam Euh, moom nag mu ngi yëkkatee kàddu yooyu moom Malick Gakou gannaaw tournée nationale bi nga xam ne grand parti mu ngi koy daal di nag def ca étape bu Taïba Ndiaye ca Tiwaawan nekkoon occasion ci moom ci fondation maternité solidaire bi nga xam ne moo ko daal di jiite mu jébbale euh, téeméer ci ay kiit ñi nga xam ne nag ñooy faral di euh, mucc leader bu grand parti profité ci ngir daal di ñaawlu itam politique bu bon bi aju ci wàllu nag santé bu état bi Tiwaawan Babacar Sow. lu santé bu Taïba Ndiaye ca département bu Tivaouane ñi def li ni mel moo di fondation maternité solidaire bi nga xamee ni ka nekk ca bopp mooy président grand parti Malick Gakou di loo xam ni def na ko ngir xeex soxna yi nga xamee ni dañuy faral di ñàkk bakkan suñu mucc wala seen doom di def li ni mel président El Hadj Malick nekk ci bopp grand parti waaye itam di jëwriñ ci fondation maternité solidaire. te xam naa ne ku dugg ci maternité Sénégal yëpp di nga fa gis na ma fu sacrifier li nga xam ne ni moo xew Sénégal ñeenti waxtu yu nekk benn jigéen dina gaañu Sénégal ci mucc te kër goo dem Sénégal fekk te loolu mën na ñàkk donc nañu jàppale jigéen ñi dimbali leen ba ñu mën a mucc ci anam yi nga xam ne ni moo gën a rafet avec cent d'accouchement parce que jur doom kat dafa neex kon nag lépp luy aar jigéen mu jur doomam loolu vraiment dañ ko war a protéger doom juddu yaay dem wala yaay dem doom juddu loolu lu te Sénégal Gakou nekk ci bopp grand parti waaye itam yore liggéey ci fondation maternité solidaire di ñaawlu bu baax a baax taxawaayu réewum Sénégal ci tëralinu politique wàllum wér-gu-yaram itteel soxna yi wannu lor ba ci am ay tolof tolof rawatina seeni tuut tànk xel mënu koo nangu El Hadj Malick Gakou. dégg keroog médecin yi di wax ne inauguré tabax hôpital yomb na waaye li gën a baax boo tabaxee hôpital pare nga def fa personnel de santé ba pare jox leen ay a faj a bi ñun ñi nga xam ne ni ay citoyen lañu te am na loo xam ne nii bu dalee ci ñun dal ci suñu njaboot dal ci Sénégal dañu war a jóg taxaw jël suñu doole jàppale jigéenu Sénégal ndaxte boo demee ci biir réew mi di nga gis jigéen ñoo xam ne nii junni sax mën a tax duñu am paas pour dem ci centre santé dañuy ëmb ba wasin dañu gis sage femme te loolu jaaduwul sabee xam nga bourse sociale ay bourse politique moo tax boo xoolee ñu ngi koy jox tii Tivaouane Babacar Sow ka la ñuy def ba gën a rek dooleel yoonu lëkkaloo ak wutum jàmm ca bët saalumu réew mi loolu mooy laaj bi nga xam ne nag ci centre euh, bokkoon na ci waxtaanu comité régional bu développement euh, bi nga xam ne nag wàllu jàmm lañ ko daal di jagleel ca diwaanu nag Casamance lëkkaloo ci ak seeni euh, ñooñ di partenaire yi institut États-Unis pour la paix la ñu jotal liggéey ci wàllu woowu ca guddoom nekkoon expérience boo xam ne daal nañ koy rek séddoo ngir xool nañuy def ba sécurité bi gën mën jàppandal àndal eh, ci yooyu les diwaan Sédhiou Moussa Dramé. bu ñu sukkandiku ci ñi amal ndaje bii lay nee ñu it lël bii lay di comité régional de développement ñu gën xam ci CRD li ko tax a jóg moo ne fexe ba gën a yaatal waxtaan gi ci jéego yoo xam ne jot nañ kaa am ci boori gu domp ndax it amal nañ ay waxtaan yu yaatu yaatu ñeel wàllu kaarange di dialogue social justice ak sécurité wàllu kaarange ci loolee it fas yéene ci am wëccante xalaat ci ñëpp jàppee fii ci bët sàllum réew mi. présenté d' abord projet bi depuis 2019 ñu ngi koy def guddoon ñu bëgg nga mun koo gérer ci waxtaan moo gën nga indi fitna. nekk noonu it Boucar Baba Ndiaye nekk chargé de projet ci institut des États-Unis pour la paix ne ñu it ci wàllu dialogue maanaam waxtaan ak diisoo boo xam ne moo ci war a dox yemale ak it sécurité kaaraange nekk na loo xam ne dañ ko war a gën a may gëdd ñëpp xàccandoo doorandoo ngir yokk wàllu kaaraange. kaaraange doonatul rek mbirum takk der nekk am nga ci wàll loo mën a def pour kaaraange googu ndaxte am na ci loo soxla am na loo ci mën a def ñu wax sécurité collaborative mu doon loo xamante ne euh, ñëpp dañ ciy gis seen bopp pour kaaraange gi gën a yokk. Modou Gueye a jàppale force de défense et sécurité xam ne ñoom dañ fay nekk pour protéger leen. bu gisee affaire yoo xam ne jaaxal na leen ñu mën a teel dénoncer. les collectivités ñu gën a jàppale projet pour le moment Goudomp la ñu mais Bounkiling ak euh, département Sédhiou soxla affaire justice dafa nekk domaine boo xam si état moo moo ko moo boppam. dañ leen di yëgal mbir mi. ñu fàttali ne rek institut des États-Unis d'Amérique am na it programme bii la ci yenn réew yi ci Sahel waaye tamit ci Maghreb ak ci Sénégal lañ ci jublu mboon rek fexe ba gën a yaatal lépp loo xam ne si dafa jëmee ci wàllu kaaraange ngir it ñëpp mën cee bokk mu nekk loo xam ne dafay gën a aju ci soxla askan wi ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud Moussa lu war toll ci juróom fukk ci ay euh, noir américain yore dël bu ñuul kon bàyyi ko l'Amérique di ay doomu nag euh, ñu dikk si fii ci Sénégal euh, dimanche yi ba léegi ci ab programme bi ñuy wax nag retourne lañ ko daal di nag acc mooy dellu siwaat ca seen i suufu cosaan muy doxalin bi nga xam ne lañ ca bëgg mooy encourager diaspora réew l'Afrique yi ñu daal di dellu si nag ci seen réew waaye itam mën faa daal di nag investir Sénégal ñu jàpp ne mooy réew bi jëkk bi nga xam ne la ñu daal di nag tànn ngir daal di fay dérouler euh, seen programme bi nga xam ne di diirub juróom-ñaari euh, fan euh, ci seen pèlerinage yooyu dinañ am weccante ak seen i nag partenaire Babacar Samb bile programme tax ba lu tollox juróom fukki doomu Amérique di ay der yu ñuul daal di teg seen tànk ci suuf si nga xamante ni fala seen maam daal di juddu di ay investisseurs wa ila ay acteurs sociaux daal di teew fii ci réewum Sénégal ngir mën a weccantey xalaat waaye itam mën fee investir Djibril Diallo di président directeur général bu réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora donc pendant sept jours si diirub juróom-ñaari fan yile opérateur économique ak ay dinañ amal ay xaatima ko déggoo ak yenn si seeni partenaires partenaire fii ci réewum Sénégal ngir mën fee amal ay activités yu bëree bëri li mel dina tax ba Sénégal mën a doon itam exemple euh, ci programme bi nga xamante ni fas yéene nañ koo amal ci yeneen i réew. de partenariat ay activités ñu fas yéene koo amal lu ci mel ni festival conférence sommet ba ci exposition di xeetuk acc bi nga xamante ni doomi Amérique yooyu la di ay der ñuul fas yéene nañ koo amal fii ci réewum Sénégal si diiru juróom-ñaari fan lii di xol bu fees doon lu ñu daal di nemmeeku ci ñoom. emotional lu tax sama rango ñu tuuru sànq moo di dama daal di xam ni maa ngi si suuf soo xamante ni dañ ma daal di respecté si sama ndono waaye itam du kenn koo xamante ni xoolee nga ma yenn bët yi maanaam daal dama fi nekk xel mu dal samay doom itam nekk fee xel mu dal li ni mel daal moo tax ma daal di jooy. waaye bile séjour tax na itam ñu daal di mën a amal wecce ci wàllum aada cosaan bu ñu jógee fii ci réewum Sénégal bile programme fas yéene nañ koo amal itam si juróomi réew fii ci Afrique lu ci mel ni Éthiopie Angola Guinée équatoriale Nigéria ba ci Afrique du Sud. Ah, ca la ñuy dem ci Saint-Louis Caritas diocésaine diocésaine eh, daal di mandargal bés bu ñuy jagleel xale réew nag eh, l'Afrique eh, ci thème bi nga xam ne mooy wàllu éducation maanaam yar gi waaye itam seen ak ak seen yelleef ci biir yar googe bëggoon weccante xalaat ak autorité ak yoo yëngu ci wàllu ak ak yelleefu xale yi ci solo yi éducation fanweer ak juróom ci ay xale yi nga xam ne nag daanaka seen loxo jotul seen i nag gannaaw di ay taalibe ki yeneen woon nañ leen ci boobu le bés ngir daal dal den tey ñeex Saint-Louis iftandeng kenn warul noot xale donc ñun suñu mbëbët mooy xale yépp jot ci seen ak ak seen yelleef. kàddu yi lee di bàyyeeku ci njiitu Caritas diocésaine bu Ndar ci bis bi ñuy màggal journée de l'enfant africain maanaam xale yu Afrique abbé Étienne Toussaint Tavares. dañu dajale xale yi nga xam ne dañu nekk ci benn projet bu ñuy doxal dajale yeneen xale yi nga xam ne tamit ñu ci mouvement associatif yi. donc ñoom la ñu dajale tey pour doxal journée bi tey. projet bi projet bi. dafa jóg pour jàppale xale yi nga xam ne seen waajur yi dañu néew doole donc dañu leen di dimbali di leen jox bourse alimentaire dimbali leen di leen jox ay kits scolaires donc maanaam ay fourniture ak yeneen lu ñu soxla par exemple dañ leen di jox yére ak dàll ouverture donc dañ leen di habillé ci. pour ñu mën a dem école comme seen yenn morom yëpp. muy bis bi ñu daal di màggal ci teewaayu lu toll ci fanweer ak juróom ci ay xale yu néew ji doole yi bàyyeeku ci département bu Ndar ak it département bu daggana te ñu ràññee ci ay taalibe. xale yi am na ñu bàyyeekoo Njëbeen Gànjool am na ñu bàyyeekoo Sànnaar am na ñu bàyyeekoo Ndar. di fexe ba xale yépp ci àdduna bi jot ci éducation daanaka loolu le bokk na ci mébétu ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk kuréelu Caritas. message bu ñu bëgg a jaarale mooy maanaam xale yépp am na ñu sañ-sañ war a mën a dem école jàngi comme ça suba ñu mën a jëriñ dara ci suñu réew jëriñ dara pour seen bopp. kii di Moussa faal doon agent bu Caritas bu allé traité di dellu si di xam ne ne war nañu gën a sukkali wàllum éducation bu mucc ayib jëmale ko ci xale yi. ndax nit ku si nekk dafa day dañu la moñaale loo xam ni am na loo war a doon léegi nag feu boobu la ñu bëgg taal ba nga xam ni xale bi dana nekk li mu war a doon ëllëg. ki doon jokkoo ak if the name Sud i xale yi nag ak seen ak yelleef ba tey ñu daal di desandeek ñoom ak gouvernement bu Sénégal bi indi programme bi aju ci waar leen rek euh, taxaw protection de remplacement ñu daal di koy duppee noonu ci euh, barab yu ñu leen daal di nag dalal waaye am na ay charte na ñuy def ba euh, daal leen cee rek dugal te nag par parlo du ci am kii di directrice bu éducation surveillée ak protection sociale dal ci daal di ci àddu ci bésug tey gi ci teewaayu Abdoulaye Diop. ngir rek daal di mën a dund gunéem ni mu waree gouvernement bu Sénégal rawatina jawriñ bi ñu dénk wàllum yoon bëgg a taxawal ab programme protection remplacement Ndeye Abibatou Youm moo jiite direction éducation surveillée ak protection sociale. Le gouvernement particulièrement à travers le ministère de la justice liggéey ci programme protection remplacement bëgg taxawal nag ay famille d'accueil nguur gi nag pare na pour dajale képp ku muy teel ngir ñu amal ab jàngat génne ay xalaat. njëriñu am yoon yu ñuy jaar jëm ci wàllum protection ak famille d'accueil. direction de l'éducation surveiller ak ak protection sociale bëgg inspection yi ñu gën leen a jox ay jumtuwaay ñu jàpp loole dina tax ba ñuy moytandiku argone gone yi bañ a nekk ab yoon ngir ay jiya. gis ngeen lu fi xewoon ci lu yàggul dara ci Louga ak taalibe yi loolee nag kenn mënu ko nangu ku jóge fële ne dafay wàññi métitu tout tànk yi gën leen a yokk ay coono ngeen yaakaar ni bu inspection yi amoon matuwaay ngir def liggéey yi ci ceytu nañ ko gis ci nu mu gën a gaawee. direction de l'éducation surveillée ak protection sociale doon màggal fanweer ak benneelu édition bi ñuy màggal bés bu ñu jagleel guney fii ci Afrique ak thème bi di fanweeri at ginnaaw ba ñu jëfee chart yi baral jéegoy agenda 2040 ngir Afrique bi gën ci tuutànk yi.